réew Rewmi 24 TV jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di réew mi vingt 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy eh, door rek coow li nga xamante ne rek ba nëgë ni rek bàyyigul kii di Mame Mbaye Niang Loum Diagne Louis Ruiz mu nekk nag fukki milliards ak juróom-benn yoo xamante ne rek eh, daal nañ koy lubal ginnaaw scandale bi nga xamante ne rek ci atum 2018 la daal di daté lu toll ci fukki milliards ak juróom-benn ci suñu koppar rek jamono ji nag ñoom ñi nga xamante ne rek dañ leen ko joxoon ngir ñu ñoŋal lépp luy rus ressources yu ñuy séddale waaye mbir mu lu mel nag mel na rek ci seen i poste daal lañu ko dal di dugal ginnaaw buñ leen jàppee ne sax ñoom seen jëmmi boppam daal ay vautours lañ ginnaaw kii di Mame Mbaye Niang affaire bi nga xamante ne rek moom nag datul jàll naam sax waaye am na ay article yoo xamante ne rek public publié woon nañ ko nag ci ca boobu les temps jaarale ko nag ci presse nationale bi mu nekkoon ab xibaar boo xamante ne rek ku neex mën nga ko vérifier ci internet bi bu fekkee ne rek am nañ ay critères de recherche mu nekk histoire boo xamante ne rek rek yëfu banditisme dëgg rek lañ ca doxal mu nekk acteurs yoo xamante ne rek ku ci mel ni Mame Mbaye Niang mi nga xamante ne nekkoon na ministre du tourisme nekk membre APR nekk jegeñaale ci njabootu kii di Macky Sall ak Marième Faye Sall nekkoon tamit li nga xamante ne moom mooy acteur principal bu carnage financier bu Prodac waaye moom ci jëmi boppam rek bokk na ci chef de gang gi kii di Macky Sall mi nga xamante ne rek da dinay jaar nag ci kaw Mame Mbaye ngir invalider candidature kii di Ousmane Sonko keneen ka ca topp nag di Aliou Sow nekkoon contexte général bu sap SAPCO niki janvier 2018 japp avril 2021 ñom acteur politique yi nga xamantene rek jégué won nañ lool ki di mambe ñak nen ka ca top nak di 3 troisième Louis Riul Grand mu nek nak ab homme d'affaires bo xamantene rek ab espagnol la yor li nga xamantene mom moy mooy chaîne Riul ak hôtel ak li nga xamantene mom moy ay ressources yo xamantene rek ci xayma ne nañ am lu tollu ci 100 hôtel fi ci réew mi fi ci 19 pays yi nga xamantene rek ñu ngi ci biir Afrique ba tey niki fukki fan ak ñaar ci wéru février ci atum 2018 euh, moom ci jëmee boppam rek dañ ko daal di woon arrêté foofa ca Miami lañ ko doon toppee nag mooy ger ak luubal li nga xamante moom mooy alalug askan wi ko ca topp di woo ci turu Mariano euh, yi nga xamante ne rek joxoon na ko joxe woon na ko ñeel rénovation hôtel yi ak show beach property mu nekk nag mbir moo xamante ne rek ay luubal ñu nga ca ak corruption bi nga xamante ne rek jamono jii ñi nga xamante ne ñoom ñooy coupable bi daal nañ leen accepté ñaari at yoo xamantene rek assignation la benen bi ci top nak résidence mu nek approbation acteur 4 nak ki di mamadou loum diagne mom ci jëmi bopam rek booba moo nekkoon patron bu groupe vaca Vacap SA nekk société bu promotion immobilière mu nekkoon nag mbir moo xamante ne rek ñoom am d'affaires yi nag doon nañ leen tudd ñeel dossier scandale lu ci mel ni Fesman bi nga xamante ne rek daal nañ ci laale lu toll ci ñaar fukki milliards ak juróom bu ñu sukkandikoo rek ci journal bi nga xamante ne rapport bi nga xamante ne fasal nañ ko ci IGE kii di Macky nag doon na wax moom ci jëmi boppam rek moom ci jëmi boppam laalewul ci waaye jamono ji nag ñuy wax sagara ngay xeeñ rek ci diggante nag ki nga xamante ne moom mooy juvier mi ñu tubbee g mu ñu tubbee CGI compagnie générale bu immobilière ak yeneen i affaire acteur 5 nag kii di a Chanel ñaam moom ci jëmmi boppam rek nekkoon na employé ca groupe Vacap SA nga xamante ne rek ci qualité directrice ak marketing ak lépp luy communication moom moo ko doon gérer moom tamit rek bokk na ci ñaareelu femme ministre bu Mame Mbaye Niang nekk nag soxnaam ni ki 14 décembre 2017 bu dee kii di Louis Guèye moom ci jëmmi boppam rek daal nañ koy yëf daal di nañ koy nag ab complexe hôtelier la yoroon fii ci Sénégal ci début 2018 ginnaaw rek bu mu gisante ak ministre bi di Mame Mbaye Niang ngir nag exposé projet am si la ko daal di sollicité rek daal di koy jox nag lu toll ci surface foncière euh, cinq hectares fi nga xamante ne moom mooy ca zone point zone de Pointe Sarène beneen acte bi nga xamante ne rek daal di am ministre. bii di Mame ñaam moom ci jëmmi boppam rek da doon def ay affaires yoo xamante ne rek peu importe fonction bi nga xamante ne rek nekkoon na ko moom da doon envisager nag ay terrain jaarale ko ci domaine ba noppi rek ci contrôle ko ba noppi mu nga xamante ne rek moom mooy patron boobule waaye nag da daan jaayaat espagnol bi moom ci jëmmi boppam rek jaarale ko nag ci intermédiaire waaye ba tey rek moom nag amagul sax ay bët yu tooy ci mbir mu nu mel ginnaaw rek bu ñu gisee ne rek daal dinay habitué ci jëf jooju ba tey ki nga xamante ne moom mooy Amadou Lamine Diagne mi nga xamante ne rek profil idéal lañ ko doon wax euh, moom ci jëmmi boppam rek ma nga ca boobule pétrin ki nga xamante ne moom mooy patron madame euh, Thiamel Ndiande Niang nekk soxna ci Mame Mbaye Niang moom tamit rek mu ngi ca yëf ya acte trois nag ministre bi di Mame Mbaye Niang moom ci jëmmi boppam dafa daal di sàkk ci xaritam bi di Aliou Sow rek euh, mi nga xamante ne moom moo nekkoon directeur général bu SAFCO grâce ak moom moom ci jëmmi boppam rek moo ko may nag mu joxe lu toll ci ñaar fukki hectare ak juróom mi nga xamante ne rek ci boobu les zones ciblées la ñu jox ko nag ab espagnol ci prix boo xamante ne ñoom ñaar dañ ci doon négocier mu nekk nag mbir moo xamante ne rek toloon na ci koppar euh, fukki million fukki milliards ak juróom benn yu tegal ñeenti milliards euh, beneen bi ci topp nag muy acte 4 bi nga xamante ne rek dañ doon indi seen faux acheteur maanaam daal ki ko doon jënd ab faux acheteur la woon di woy ci turu Amadou Loum Diagne moom mi nga xamante ne rek moo doon joxe diggi tooy xepp ak lépp luy jaay te sab ko ngir nag mun a jot ci ñaax fukki hectare ak juróomi prix bu nekk rek mi ngi ko doon jaaye un jaayee 1,5 milliard acte 5 bi nag euh, daal dinay fësal nekk seen ñoom ñëpp rek ay affaires yooyu lañ doon def ngir nag mën a am espagnol bi ci accord achat bi nga xamante ne rek moom moo toll ci ñaar fukki hectare ak juróom ci piri bu nekk nag ñu ngi ko doon jaayee lu toll ci 16 mille 16 milliards virgule 4 euh, milliards mbir mu nu mel nag ginnaaw opération bi nga xamante ne rek euh, def nañu ko ci édition 2018 ak salon IFTM bu Top Reza bi nga xamante ne rek doon am ca diwaan bu France niki septembre acte 6 nga avancé euh, bi nga xamante espagnol bii di Amadou daal dina koy def ginnaaw bi ñu avancé espagnol bi di luwiir wi mi nga xamante ne rek ab espagnol la kii di Amadou Loum Diagne moom nag jot naa fay Safcon toll ci cinq milliard jaarale ko nag ci transaction yoo xamante ne rek effectué na ko waaye nag gisuñu ci benn yoon ay euh, document yoo xamante ne rek dal na cay euh, feeñ moom espagnol luwi réew bi nag jot na acquitté li nga xamante ne rek moom mooy des ci borom bu ñu sukkandikoo rek euh, ci échéance bi nga xamante ne doon nañ ko négocier ngir affaire yooyu nag mën a ci kaw ministre Mame Mbaye Niang nag ci jëmmi boppam rek jot na bénéficié wu lu ci fukki milliards ak ñeent ci suñu kopp rek ñeel nag frais yi nga xamante rek am na ci ak taxi bu nekkee acte bi nag moom espagnol bi daal di woon lay tabax nag lii di hôtelam fi nga xamante ne rek mu toll ci 60 milliards de francs CFA kii di Macky ba nëgëri rek mu ngi mel ni rek ku yëgul woon boobu lee mbir waaye arnaque dëgg rek lañ ci nemmeeku ginnaaw ni ki 27 mars 2022 bu ñu gisee nag mu ànd ki nga xamante moom mooy président de la république ngir inauguré nag boobule hôtel ñu déppee nag ab hôtel privé jamono ji nag ñu ngay sàkku rek ci autorité yu yees yi nag ñu daan di indi ay leer ci ñaar fukki hectare ak juróom yi nga xamante ne rek joxe nañ ko fa ca Pointe Sarène waaye nag di sàkku rek ci compte yi nga xamante ne rek moom moo ñeel protagoniste yooyu ñu fexe ba récupérer milliards yi nga xamante ne rek askan wi ñoom ñoo ko moom waaye nag groupe waaye nañ ko récupérer te xam ne askan wi ñoo ko moom bañ ko bàyyi groupe yi nga xamante ne rek ay dealer lañ nekkoon ci bopp nguur gi ku ci mel ni Mame Mbaye Niang te coowal Prodac ak yeneen scandale yoo xamante ne rek ñu ngi ko cee tudd mu nekk ci cent milliards de francs CFA mu nekk multiple rapport boo xamante ne rek daal dinañ koy gis te existé wul benn yoon bu ñu ñu ngay sàkku nag ci nu mu gën a gaawee autorité yu yees yi nag ñu daal di indi ay leeral ci rapport bu IGE ci Fesman bi nga xamante ne rek dañ cee envoyé woon prison ki ngir di Sindiély Wade ak Amadou Loum ginnaaw rek buñ gisee nag kenn ku ci nekk rek am nga ci sa idée ci boobu les rapports ngir xool nag ci Google euh, terme yi nga xamante ne rek moom moo amoon ca Fesman boobu Loum Diagne euh, Sindiély Wade bu ñu sukkandikoo ci rapport IGE waaye nag ñu ngay sàkku rek ci affaire bu nu ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ko fi daal di wuutu ñu daal di ci indi ay leeral ci ñi nga xamante ne rek deretu askan wi la ñuy dundee euh, ba noppi ñu ngay sàkku nag ci réseau mu Jomaay ak Sonko ak Pastef nag bu mu def mbir mu nu mel waaye daal na fexe rek ba yóbbu yëf yëfa ma xala doonee benn bu ko def defee rek ñoom bandi yooyu ñu mën leen a xam bu baax fan la ñu teg seen tànk bu ko defee rek ñu daal di leen mun a topp ba dem prison génnee nag xaalisu askan wi nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi ci toog ñi lekk nañ ko ci mbir mu nu mel nag ña ngay sàkku rek ci criminel économique yi xamante ne daal ñoom ñoo ko créé jaarale ko ci seen occupation ba noppi rek sàcc ay dizaine wala ay centaine milliards kenn ku ci nekk rek ña ngay sàkku ñu accéléré cadence bu nu mel ko defee rek ñu daal koy càmbaraat bu jaree nag ñu tëj leen ñu tëj leen ràpp ba noppi rek récupéré xaalis bi nga xamante ne rek sàccoon nañu ko mu toll ci xayma lu ëpp cinquante milliards ci dix années yi nga xamante ne rek moom moo daal di jàll il faut rek ñu daal di lancer ab mandat d'arrêt international contre rek ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall ak ganam gi ak ay gangam bu ko defee ñu daal di auditer li nga xamante ne moom mooy fondation Servir le Sénégal euh, di kàddu yi nga xamante ne rek daal di nañ koy euh, fësal jërë ngeen jëf ci teewlu bi euh, kii di Marvel Ndoye moom moo ko daal di rek xamle jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i